bi ma Cheikh waxee naa ñëw si thème bi xalaat naa ni naa est war naa fi ñëw euh, ndax war naa fi ñëw euh, parce code de la famille dafa di question bu fi yàgg boo xam ni nit ñi tën nañu ànd mu fàttali ma benn bis ma dem dem États-Unis Boston ñu ma ñu ma doon jox foofu am benn waay bi ni 2008 dañu ñëwoon fii université Cheikh Anta Diop waa ji di wax waxu benn waay jóge fa naan ko américains yi dañuy fen mosuñu dem ci weeru mën na am mën na ñàkk waaye li ma gis ci ay bind ñun nañu dem nañ ca weer waaye li am ba am man loolu soxaluma ndax 1968 man judduwuma woon ndax dama bokk ci kuréel taxaw di gëstu cinquante ans yi nga xam ne fa la États-Unis jëm mu ne ma li séparé sénégalais bi ak américain yi gawu quatre-vingt-dix ans Sénégal bi mu ngi lijjëm ci li xewoon il y ans kii mi ngi jëmal boppam ci li xaw il y ans dama doon wax est-ce que jotul fi ñuy waxee ay intelligence euh, numérique di wax intelligence artificielle di wax fu àddina bi ñu jëm est-ce que duñu jël suñu énergie yëpp dugal ko ci loolu mais ma xalaataat ma ni c'est vrai il faut que ñu avancer mais société boo mun di gis aussi dafa tëkku ci ay valeur propre li tax may liggéey ci loolu Cheikh woo ma parce que dafa am lu ñu bokkoon temps yi ci affaire famille dëgg la sociologue laa mais ni ma nekk docteur en sociologie noonu laa nekk docteur en travail social nga xam ni famille mooy fondement liggéey boobu mais suñu gëstu aussi wan nañu Sénégal famille baa ngi ndërmeelu te bu fekkee defuñu dara moo taxoon ci présidentielle yi ñu def campagne quel président pour la famille sénégalaise kon problème am na te il faut ñu gëstu ko mais problème bi tamit loi yi war na ci mën a bokk euh, bi may ñëw maa ngi leen di wax naan leen jotaay bi jotaayu góor kese la te mbirum famille la ñuy waxante or mbirum famille ñu ko seq mooy waajur yi mooy njaboot mais bu dee ay góor kese lañ fi indi wax ji dana demee boor parce que li ñuy wax le temps masculin et le temps féminin waxtu bi nga xam ne jigéen ñaar ngi ci kër yi pour toppatoo ndogu yi boo leen woowee ba heure boobu doo leen mën a jot ndax dama leen laaj ana jigéen ñu ne ma ah xam nga jigéen ñi di farluwuñu déedéet du loolu heure bi ñu wootee moo dul heure bu baax pour jigéen ñi mën ko fekk comme dañuy waxtaan avenir société bi foog ñu boole ci loolu deuxième élément bi tax ma nangu ñëw dafa fekk dëgg la liggéey naa si euh, ba bind ci benn article bu ñu publier si benn livre avec université Abidjan li docteur bi wax tout à ci processus bi bi ñuy am indépendance dañu amoon juróom-ñeent ñaar fukk ak juróom-ñeenti sàrt yu tënkoon Sénégal mënuñu construire benn société ni dañuy dem jëmukaay ba pare juróom-ñaar fukk soixante-dix-neuf ak juróom-ñeentu askan bu nekk ni may act si sama acte lay acte woo donc objectif moo doon naka la ñuy fexe ba am benn chart boo xam ni nit ñi ku nekk dañu si gis sa bopp ay commission teg nañ leen dëgg la du ñu dellu si parce que dañuy gàttal bi ñu demee ba war kon adopté assemblée nationale këru diine yi dañu waroo loolu la ñu man li may wax du sama wax li ma gis ci gëstu ñëpp ànduñu woon loolu moo tax Senghor toog nañu ba jóg dégguñu boobu contestation ànduñu woon ñoom ñëpp te loolu euh, euh, papa yi asib bi fabi nu mu tuddati samay partiteur administrateur civil la waa xam a topp ajjuma fabi bind na ci wax ko parce que fekkee woon na ko donc amoon na absence de consensus ci seen biir si li ñu wax ci gëstu waaye sëñ Abdou Lahad moom dafa ni xaw ma fan mais Touba moom kenn du fa appliqué Touba lañ wax si gëstu yi moom appliqué wu am na yeneen kër si monde rural bi appliqué wuñ ko mais moom moo ci fes ni moom appliqué kon waxuñu ko woon bi ñu demee ba beneen crise am mooy Abdou Diouf Ablaye Wade kii jóge fi Senghor Abdou Diouf ñëw ñu profité wu si dix yi ñu ne dañ koy remettre en question jàll si diggante bi am na ay mouvement wu jigéen yu jóg comme yeewu yeew yi am lu ñu doon xeex comme affaire polygamie moo ci gënoon fes ñu dem ba 2000 bi nga xamee ne Ablaye Wade moo toog ñoom maam Imam Mbaye Niang ñi jóg nañu surkof ni ñoom tam dañuy proposer code de statut personnel Ablaye Wade ni leen ah Senghor def ko fi kenn laalu ko Abdou Diouf def ko fi kenn laalu ko man ngeen yàpp moo tax ngeen bëgg ko def loolu mooy waxum Ablaye Wade li am ba am moo di pourquoi war nañ ci waxtaan moo di mënuñu nekk une nation te du ñu am jëmukaay deuxièmement askan la boo xam ne ñi fi bokk ñëpp bokkuñu fu ñu jëm li ma gis ci code bi juriste yi mën nañ ma ko wax si li ma jàngat ñu bari liiruñu code bi dañuy war di wax code de la famille mais ñu bari xamuñu lan moo nekk si biir code parce que sénégalais yi jàngul ni arab ni français kon majorité sénégalais yi xamuñu li bind lu mu doon code bi li ñu wax ni valeur dafa am importance ci une société dëgg la Napoléon Bonaparte moo ko tëgg en 1804 te juróom-ñaar fukki réew ak benn ci àddina bi inspiré wu nañu ci code bi Égypte sa la bokk donc ñun effectivement suñu dépendance comme colonie tax na comme pays yi ko nekkoon francophone yëpp te dinaa du rek francophone même États-Unis d'Amérique dafa utiliser aussi le code civil Napoléon moo tax Napoléon daal di waxoon ne Waterloo effacera toutes mes batailles la seule chose qui me survivra c'est mon code civil mu ni Napoléon ba dañ ko gagné sa Waterloo mu ni dana far njàmbaarte bi mosoon am yëpp ci àddina waaye am na lenn loo xam dana ko mujj mooy code civil bi te wax na dëgg 71 pays moo jëlee ci tënk léegi ñun li ñuy gis ci biir code bi moo di boo dee jullit li kii def euh, avocat boobu ni bu deewee nañ ko acte ci acte islam mais code bi daf ko wax nee na bu dee jullit nga soo deewee su dee yow loolu mooy sa volonté ci loolu lañ lay acte kon problème bi sénégalais yi la aussi parce que sénégalais bu dee ñoom jullit lañu lu ñuy wuti ci tribunal lu leen tere dem attewu ji ci li nga xam ni loolu lañ gëm kon war nañ jamaat éducation ak sénégalais ci seen bopp lan mooy seen propre conviction parce que ki gëm ba xam ni ëllëg dafay tase yowmal xayaat boromam kooku loolu la gëm dem na ni bu ma deewee bu leen ma àtte ci loolu parce que yoon bi may na ko moom li ëpp nag ci li ñuy wax ci biir code bi moo di affaire u sëy affaire tas ak affaire u ci affaire u code bi am na avantage yu mu amal jigéen ak avantage yu mu amal góor am na avantage yu mu am inconvénient yu mu amal jigéen ak inconvénient yu mu amal góor parce que biir code bi lenn de bi mu ñëwee ni kenn amatul droit jël sa jabar rek ni fase naa ko mooy répudiation foofu de la amal ci jigéen ñi te duñu xëy dàqaleen ci kër gi ak lañ fa defoon yëpp te loolu tamit war nañ ko seetaat parce que bu ñu waxee dañ ko bëgg tënku ci diine mais diine dafa am worma diine dafa am sutura waxu la nga xëy takk sa jabar ba xëy bu mu neex la nga ni sonn naa ci moom dàq naa ko wala nga toog ko am ñu ko fiy def toog ba mu neex leen ni dañoo taboo bant dañuy seet kan la ñuy wàññi loolu c'est des questions yoo xam ni war nañ ko xoolaat bu ñu waxee jigéen ñi ñoom liñ ci xeex yu bare am na luñ ci code bi toogul statique code bi transformé nañ ko plusieurs fois ay articles par exemple jigéen amul woon droit ubbi compte bancaire jigéen amul woon droit génn sans mu am autorisation jëkkëram amul woon droit dëkk fu jëkkëram dëkkul mais condition yi moo tax bu ñu affecté sa jëkkër fii affecté sa jëkkër fale nit ñi bu ñu leen ko nangu mu am si yoo xam ni tamit ci affaire polygamie loolu la jigéen ñi gënoon xeex mooy tawu yeewu yeewu yi mais boobu mosuñu ci am pour gain de cause parce que société bi si boppam moo ko ndax ndaxte sax dañu mujj gis li mu doon wax ni code bi daf lay permettre nga mën a opter régime monogamique benn femme ñaari ñett ba ñett gis nañu même professeur université yi fa ñu yaakaar ne foofu la xam-xamu ba gën a màcce mais ñoom ci seen bopp ñooy wëlbatu takk jabar pare wëlbatu ko jëlaat beneen ñaari jabar donc bu fekkee ne affaire polygamie bi la les femmes ont perdu la bataille au Sénégal li ñu bëggoon saa li normal ngeen di doon xeex parce que école normale euh, de de jeunes ni ñu leen formaté woon ñu ñëw mouvement année quatre-vingt mouvement yeewu yeewu ñu ko xeex léegi jigéen ñi sax contraire bi la ñu revendiqué ah euh, gis nañ ko Côte d'Ivoire jigéen ñi di xeex naan dañu bëgg polygamie mais gis nañ Guinée tamit fan yi ñu ne ñoom def nañ loi boo xam ne kenn bala ngay takk néewuñu bu kenn takk ñaareel de dañ ni bala ngay takk ñaareel foog nga am avaaru sa soxna bu njëkk pourtant loolu Maroc bii Maroc bii ñun gënuñ leen jullite si li ma yaakaar mais Maroc la mu dawanaa man ngeen fekke naa ko ba ñu koy 2003 ba muy génn bala ngay takk ñaareel xaadi bi takk juge bi mooy dem seet est yow mën nga yor ñaar wala ñetti jabar ñu doog la koy jox moo tax Maroc la taux de polygamie est de deux virgule cinq pour cent kon société bu nekk même bu ñuy wax fii polygamie dañuy wax diine bi mais xëy na suñu aada ak suñu cosaan moo ci gën a dëgër jar na nag ñu xoolaat est-ce que ku mu neex nga war takk jabar bi la neex jur ay doom sànni leen ci mbedd mi doo leen yor loolu tamit c'est des questions de société yoo xam ni liy ndërmeel valeur famille aujourd'hui loolu bokk na ci léegi euh, débat bi bala mu doon gën a baax ngeen jël article par article ñu xool lan la ci code bi wax lan la ci diine wax parce que sinon plaidoyer lay doon pour ou contre le code de la famille man sama position fii ce n'est pas être pour ou contre dañ ma demander en tant que sociologue en tant que chercheur moo xool le passé fi ñu jaar bi fi ñu jar ñoom ñu ne ma naa xool l' avenir avenir bi tamit war nañ koo gëstu ñu seetaat ko. maintenant la question boo xam ne une position personnelle la mais jógee aussi ci gëstu moo di à un moment donné Sénégal à chaque fois que problème bëgg fi am dañuy utiliser diine te dañ koy jaarale si jigéen parce que suñu évolution historique dafa génn islam confrérique ak un islam radical. ci s'est mis en place nga xam ne ñoo dem Tombouctou daaneel fa armée ya fa nekkoon te bis bu ñu egsee senegal tamit loolu la ñuy def bu buñ fi agsul bu leen bu ñu amoon possibilité loolu la ñuy def parce que ñoom leen nañu shirk la li nga li ñuy gis ñun li ñuy gisee ñun suñu confrères yi ñoom loolu la ñu yaakaar léegi nag ñu fi doog a ñëw au Sénégal li ñu suñu gëstu man di dañu contrôle confrères yi bi ñu demee ba gis ni mënuñu contre confrères yi ñu wëlbatu ko def ligne de masse parce que ñu si bari si ñoom ay anciens communistes lañ woon ñu wëlbatu ko def ligne de masse liñ daan jàng ci mouvement marxiste yi suur ci biir nit ñi bu ko defee ñu dem ànd ak famille confrère yi pour ni léegi l'islam la ñu la ñu bëgg dooleel à partir de ce moment porte d'entrée bi gën a simple mooy affaire wu jigéen mais je dis que l'islam day wax science parce que du huitième au douzième siècle le monde musulman xam-xam bu fi amoon Michel Serres moo ko bind sur terre scientifique si monde islamique la génne woon naka lañ def ba xam-xam boobu nërminu donc bataille idéologique moo am aujourd'hui pour le contrôle de la société sénégalaise et des consciences de Sénégalais il faut que nit ñi xam ko te loolu nag si li gën a maillon bi gën a faible lañ ko mën a jaarale mooy kasu réeral nit ñi si ay waxu jigéen mais man ma position personnelle en tant que assistante sociale docteur en service social pour liggéey ci question famille ba gis ni famille Sénégal mi ngi lël lëlu ba tax ma dem jëli ñoom Cheikh Dieye yi ak ñoom waa Jamra ak ñeneen pour wax leen ne leen il faut que ñu liggéey ci question famille je pense que waxtaan war na mun a am pour ñu xool naka la ñu tëggee li ñu war a dund et si biir loolu damay wax toujours jigéen ñi ni leen islam confrérique est le meilleur allié des femmes parce que islam confrérique dafa mos a si suñu dëkk ñu laa wax ne dafa mos jox jigéen àq ak gëddaam la preuve tey lan moo ñu fi tax toog su dul benn jëmm benn jigéen muy soxna may mais soxna may moomu kan moo ko meññ bu dul maam jaara busu bi nga xam moom moo am dëkkam tey la seule femme mais kooku kan moo ko meññ mooy soxna Asto Waalo bi nga xam ne nee naa si on fait l'historiographie des grands savants du monde mouride li amee ameel soxna Asta Walo bare na parce que bi borom këram làkkoo moom moo jël formé ay aafisu alxuraan yi nekkoon foofu kon l'islam confrérique sénégalais dafa joxoon cër jigéen man bu ñu naxante euh, le le monde va évoluer or soo ko tegul ci dëgg ak ci li nga xam ne moom moo mën a dugg ci bopp nit ñi du mën a jàll kon autant ce code là à des yoo xam ne am baaxul si jigéen pour man am na point yoo xam ne amulul benn njëriñ jigéen am na point yoo xam ne amulul benn njëriñ góor sulu dafay indi des questions conflictuelles il faut qu'on retourne à un islam apaisé ñun ci loolu lañ judd dañ la daan wax boo tooñee ñun la bàyyi koog yàlla yàlla dana ko yàlla dana ko duma ëllëg c'est une façon de parler mais mënuloo marché aussi contre contre l'histoire li am léegi ba am mooy li Serigne Cheikh waxoon parce que pour moi Serigne Cheikh mooy ki nga xam ne xalaatam si laa gëstu pendant plus d'une trentaine d'années mooy nandal man li may xalaat Serigne Cheikh li mu ñu euh, li mu ñu mën a bàyyi ci jàngat sur les questions de société sur les questions de famille tant koy nettali mu naan benn vidéo bu ñu jàll bi mu naan maam Adama ak Awa wàccewuñ leen en même temps Awa nañ ko wàcce Inde mun a xam ne lu tax dafa bañ góor ñi tiituñu ci moom parce que moom dafa saragaloon jigéen moom Cheikh mu ni góor ñi wax nañ la daxasal seen tànk ñooñu daal ñoo doy waar xanaa du ñu jàpp cinq fois par jour ba seen tànk di tilim bala ngeen ko raxasal xam nga c'était une façon très apaisée bëgg la dugal ci boppam nga mën a ubbeeku mën a déglu ma xam li muy wax mais il est resté un orthodoxe dans la religion si li mu jàngate ci ci moom kon li des ba des Sénégal la majorité moom moo ne woon xale yëpp daal di daw daw jublu ci diine waaye mbaa daal ñu am ñu leen gàttal le ce siècle là c'est un siècle religieux xale yëpp bëgg nañ gëm nañ diine fii tey Sénégal ñi ci ëpp mais ñan ñoo leen yor ñan ñoo leen ŋànk pour wan leen yoon bi ñu war a bi ñu war a jëm donc le contexte peut être facile mais am même temps il n'est pas si facile que ça parce que islam confrérique bi ñu amoon dafa rax dafa rax li am léegi ci bi y a le mouvement radicaliste qui est extrêmement impuissant dans ce pays parce que man damay dégg yoo xam loo xam ne man mii bu ma ko xamee waa ministère de l'intérieur war nañ ko xam ñun sociologue li ñu xam ci terrain ministère de l'intérieur war nañ ko xam parce que xale yi ñuy dugal ci ay école di raxas seen bopp pour dindi si moom li fi mag ñi defoon loolu war nañ ko jéem ñu seetaat dama toog ba si yàgg ma ne c'est man sama maam mi ngi judd ci toolu xare parce que papaam dafa àndoon ak Cheikh Ahmadou maamam ànd ak El Omar ba nga def Bandiagara comme moom mais su fekkee ne damay déglu ñoom li ñuy doon wax ak lu ñuy nett yi si moom laa daan dégg bu may nett bu may expliqué naan ma aami loolu moom nii na parce que Cheikh Ahmadou Cheikh la doon wax mais tey dama dégg ay émir fii au Sénégal or pour ñun sociologue la le le le langage linguistique dafa am doole ñun sëriñ lañ xamoon cheikh lañ xamoon mais tey tey toog nañ ba ay amina di am fii ci Sénégal mais war nañ ko jàngat donc euh, bu fekkee ni waruñu teg suñuy ay xal ak suñuy ay xalaat si affaire bu ay jigéen ci affaire bu ay leneen parce que jigéenu senegal comme je dis lu lu mel ne soxna Asta Walo lu génne lu mel ne Mame Diarra Bousso lu génne lu mel ne soxna May mi di doom ñaan nañ yàlla mu am ñeneen ñu fi génn te gëm nañ que si daara jee ñuy former ay maam jaara bu suy mais dañu war a def attention entre utilisation idéologique de la religion ak li yàlla wax parce que li yàlla wax nous avons tous li ñuy wax sëriñ Cheikh moo ñu wax on est tous vicaires de Dieu sur terre dañu am obligation kenn ku nekk si ñun dem jàng diineem xam ko xam li muy wax mu war ko roy ah man de dinaa man ñi nga xam ne dañu xam suñu sociologie xam suñu histoire muy Ahmad Bamba muy Cheikh Tidiane Alhaji euh, Malick muy ñoom Baye Niass ak ñeneen ñëpp Limaamu Laay bu ñu ñëwee ñoom jàngatal ma sama diine tënkal ma ko ñoom laa gën a gëm ki nga xam ne fale la jógee jël benn téere boo xam ne ki ko tënk xaw fu mu ko bindee ak xaw ma si parce que ñun en en la université da ngay am la dañuy am validation bu ñu nee Cheikh Gueye mii docteur la en. géographique il faut mu am lu ñu ko prouver ñoom maam du baax Bamba xam nañ seen jaar-jaar ba nañu xam ba am euh, intérioriser diine ba wane si seen ay jëf mais beneen auteur comme bu njëkk ba rek dañ daan topp naan Karl Marx ak Mao Zedong beneen nit ku jógee feneen bind ay téeréem ah man da du ma ko gam-gamlee kii nga xam ni au moins mën naa xam moom xam na sama diine xam na sama culture lu muy wax te jàng amoon nañ pédagogie boo xam ni indi woon nañu nànk nànk nànk nànk ba ñu comprendre parce que xam nañ lépp du sotti ci benn bis loolu laay wax man li may jàng si éducation wu Serigne Cheikh li muy wax xale beeg mag mi ku nekk ni si gis sa bopp parce que li mu wax du soppeeku di nga am niveau boo koy déggee mais plus nga koy gën di dégg dégg-dégg ba day gën di xóot mais du mais donc li am importance tey c'est très bien man je félicite parce que sujet warul am tabou parce que bi may ñëw nee nañu ma yow yaay njabootam Touba ba pare foo foofu code de la famille man leen waaw parce que foofu bi ko Cheikh Abdou Lahad Gaïndé Fatma tegee ba tey espace de réflexion la espace universitaire la te diine islam ci xam-xam la mos sosu mosuñu dàq xam-xam euh, li am kay moo di ku nekk rek na nga ko wax am foo ko teg buñ la koy dindi aussi comme li ñuy wax à l'université un argumentaire se rejette par un argumentaire bu fekkee li ma wax indi nga lu firndeelu du noonu dama koy nangu mais man it bu dee li ma wax li am na fu ma ko teg te mënoo ko daaneel da nga ko war a nangu loolu la espace de réflexion di indi te man ne leen euh, man chercheur la gëstukat la li may wax waxula ma sama bopp damay wax si am yoon bu ma ko jaaree noonu lañ koy jàng bu fekkee ni dem naa ba réer ñu ne ma léegi fii da réer te démontrer ma ko dama koy nangu mais li am importance pour man tey dama ne thème bi prétexte rek la ma ma terminer foofu prétexte la pour ñu xalaataat suñu société ak li mu tëdd parce que li ñu dëngmal ci ci ëllëg ak addina bi nu mu tëroo il faut que ñu balancer les deux à la suñu propre valeur ak socle bi ñu war a tëdd mais il faut tamit ñu bàyyi suñu xel bu fekkee ñu des gannaaw ñu xool àddina bi fa mu jëm parce que dama gëm ni yàlla ba mu ñu fi wàccee sur terre c'était pour ñu defar àddina sëriñ Cheikh moo ñu wax loolu c'était pour ñu defar àddina bi kon àddina si lan lañ koy defaree ci xam-xam lañ koy defaree su du woon loolu bàyyi may dafay bàyyi kon euh, ñu continuer ci euh, ñu bàyyi ci biir débat bi ñu dellu siwaat si li ñuy laaj c'est dommage nag cher parce tam bi dafa di thème bu am importance boo xam ni li gënoon jaadu pour une démarche scientifique mooy ñu génne yan article la nga xam ne la ñuy diingat ñu liir ko wax ci suñu xalaat est-ce que li ko nit ñi déggee loolu lañ ko bindee walla est-ce que nit ñi dañu dañu am déggin boo xam ne du boobu déggin la woon mais mënuñu woon en 1972 continuer di am juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent tënkukaay yu ñuy àtte fii ci biir Sénégal il fallait que ñu avancer d'une certaine manière mais loo avancer avancer tamit da nga war a ànd moment donné nga soppi parce que code civil boobu de 1804 tubaab bi ci seen bopp soppi nañ ko du la leen Napoléon bàyyiloon lañ continuer di utiliser ba léegi kon jot nañ mais ñu def ko un débat sain pas xëccoo fii kii moo mën kii kii dafa contre fale mais suñ ko defee teg ko ci ci leer di di ko jàpp benn par benn di ko génne boole ci ñi ci war bokk yëpp parce que affaire bi du rek question wu religion question de société la qui est fondamentale te bu fekkee ni da nga sa li ma tënkee moo di bu dee Sénégal yi gëm nañ seen diine lu leen yóbbu tribunal wax jooju war nañ ko mun a seet parce que bu mu doon taxawee rek nit ñaa ngi tribunal mais kon ñoom ñoo gëmul yàlla ñoom ñoo gëmul alxuraan parce que bu dee soxla soxlawul ñu leen di dem di leen fa